asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV yi nuyooti naa leen ziaralti leen ñaanalti leen jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen balu àq te di leen baal di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal ñu sax saxadatu daaray ni li nga xam ne moo fi ne xuus na xas ci réew mi ci àddina bi sax laay wax muy mbas mi yàlla na ko fi yàlla jële tey nag ku ne xam na ne nu ngi alxemes mu tombe ak la nga xam ne nii moom moo di la 5 aut 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglekaay yi li ñu indi ñu dikkaat ak yéen ci ki li nga xam ne moo di plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah jeudi 5 août 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay sunu lamb leen xëy doore ko. yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb nag tey moom xëtam mu njëkk fa mu ca xëy génn fenn la maanaam daal mu nga xëy nay mu nga xëy boog ñëw di wax ci la nga xam ne ni moom moo amoon démb ci arène nationale muy journée boo xam ne lañ ca jublu woon maanaam képp ku bokk ci làmb nga ñëw ñu vacciné la yëglikaay bi ne nag woote booba moom ba nu ko wootee daa mel ni boo bëggee dëgg-dëgg moom maanaam ci noppi ku tëx la tàbbi ndax nag ña nga xam ne ñoom la ñuy dippee les VIP nga xam ne ñoom mbër yëpp ci ñoom la ñu war a roy muy mbër yu mag yi moo xam bal Balla Gaye la Lac de Guiers 2 Bombardier Tapha Tine maanaam képp koo xam ne daal VIP nga daal yëglikaay bi ne na boo bëggee dégg dëgg moom démb boycotté la ñu def la nga xam ne nii moo doon journée de vaccination ba jaar daal defuñu ko fa nga xam ne nii moo doon ca fa nga xam ne moo di arène nationale ka nga xam ne nag moo jiite làmba ji mu ngi cay wax muy Bira Sène la mu xëy xam ne daal nee na daal maanaam daal lii nu gis nii maanaam maanaam mooy nekk mbir moo xam ne nii soo bëggee dégg dogal yi nag daal di ko jox kilifa yi xool nu nuy defaat ba làmb ji nu mën koo ubbi mel ni ki nag góornóor tamit ñëwoon na fa yëkkati na tamit ay kàddoom daal di ca wax maanaam daal ca la nga xam ne moo fa am ak tamit na ñuy dikkaate ci mbirum saison bi Alassane Sall daal wax na ci lu mel ni ki noonu Gaston Mbengue tamit des promoteur ñëwoon na fa moom itam te fa nga xam ne moo doon fañ doon vacciné woo démb moom itam daal la mu xamle daal nee na loo ci mën a dégg Gaston nee na daal wér yaram la ñuy njëkk wax balaa ñuy tal ay waxi lamb ak leneen ak leneen loolu mooy waxi nga xam ne nii moom moo di Gaston Mbengue mel ni ki nag VIP ya nga xam ne moom dañoo boycotté la nga xam ne moo di journée de vaccination ba am na mbër moo xam ne xëy na tey songu leen muy Zarko bu Garaayof Zarko daal la mu leen jàppee nee na ñoom ay niti intérêt la lañ te Gaston gas gi nga xam ne nii moo di Zarko nee na soo bëggee dégg dëgg VIP yi nga xam ne ñoom la ñuy duppee ay VIP ñu nekk ci làmb ji Zarko nee na seen bopp kese kese kese moo leen ñor waaye leneen taxu leen a jóg maanaam daal ay nit lañ yoo xam ne intérêt personnel dong la ñuy dox te itam daal seen intérêt kese la ñuy défendre waaye pour làmb ak ñetta des ña nga xam ne ni ñoo ca bokk Zarko na soo bëggee dégg dëgg na ñooñu moom taxuñu leen jóg seen bopp daal lañ fi nekkal yemu ca jàpp na ne tamit seen association ba nga xam ne nii moom la ñu amal te Gris doo dal di nekk njiit la Zarko nee na boo bëggee dégg dëgg daal wàllum farce la ay fo ak i caaxaan kese la waaye nekkul loo xam ne lu am njariñ la wala loo xam ne lu leer la wala lu dëggu la Zarko daal tey xëy na tey moom itam dal di jël aw yetam rek fëgg ca taabal ja dóor ko ña nga xam ne nii ñoom ñoo di VIP yi Zarko bu Grand daal tey loolu la xëyee keneen koo xam ne nii yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom mel ni olof fa koy wax maanaam tontu du torox du forox ka nga xam ne moom moo di Serigne Ndiaye numéro de moom moo toogoon fii ci plateau ba nga xam ne moo doon plateau Arena Hebdo daal dafa xam ne daal ne digganteem ak ka nga xam ne moo di Abi Farhat ma tëg digganteem ak Sococim maanaam contrat ba jeex na lamb liyeetu leen ndax nag combat ba reporté nañ ko ñetti yoon Serigne Ndiaye ne na ma maanaam daal di xam ne daal ca caméra ya ne li am ba des daal maanaam ku bëgg lambam wala kombam ak meneen mbër boo yeboo nga doxee ko ndax moom moom ak Abi moom jeex na tàkk tàkk tàkk Habib itam xëy na tey di tontu ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb nee na man daal li am ba des moom ka nga xam ne moo di Tafa Gueye laa doon waxal tey itam moom laa waxal te itam jàpp na ne ñoom la ñu def daal mooy delloo la nga xam ne moo di avance ba lool mooy wax yi ka nga xam ne moo di waxi Habib Farhat yemu ca ñëw na tamit ci diggante ak Serigne Ndiaye ndax ne na daal jàpp na ne moom boo bëggee dégg-dëgg Serigne Ndiaye sa da koo bet ak ni mu génne waxee ko ndax nee na bu yàgguloo Ndiaye ci ay jamonoy koor gi rek daje nañ fa nga xam ne moo di ca réussite ba ba wax waxtaan nee na ba ma yëkkati meew mu baree bari may ko te neen itam yemu ca nee na bu yàggu loo njaay déggante na ak Tafa Gueye Habib daal xëy na tey di wax lu mel ni ki noonu andi na ay leeral ci digganteem ak Serigne Ndiaye numéro 2 keneen koo xam ne ni moom ak ñaan la soxla muy Adama jaata ma nga xam ne mu nga fa nga xam ne moo di ca Tokyo ca Jeux olympiques ya yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci moom yëglikaay bi ne boo bëggee dégg da dëgg daal tey ci ngoon maanaam ci guddi gi daal ci alxames ji nga xam ne ci la nekk daal ci la fas yéene wàcce nag jongante moom Adama Diatta Aline jot nag ku ne xam na ko ci wàllu wu mel ne ki noonu ne na Adama Diaté war naa mën a génn ci la nga xam ne ni moom la dugg ndax nag am na expérience bi te nekk na koo xam ne ni daal la muy def daa mel ni xam na ko yëglikaay bi moo xëy tey moom tamit laaj ko ca mbir yooya ñeneen ñoo xam ne ni moom fa nu war na yëkkati ko dañ faa mujj a taxawee muy waa saar ndax boo bëggee dégg-dégg yëglikaay bi nee na Siteu amoon na combat Mama Lamine am combat ne kuréel ak coince nee na ñeenti mbëri lansaar yii yëpp maanaam daal seen combat ya nga xam ne moo leen moo waroon a yëkkati ñu jëm ca kaw a kaw combat yooyu yëpp dañ ko reporté yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu te la nga xam ne nii moom moo di xëtam mu njëkk am na keneen koo xam ne ni moom jël na làmb ji jagleel ko way wu neex a neex a neex muy Assane Ndiaye mi ngeen xam di ab waykat di tamit mbokkum ka nga xam ne wala boog de yàlla sa Ballaago Seck Assane Ndiaye daal jàttal na waa làmb ji way wu neex a neex yëglikaay ba moo xëy ci ci tuusi di wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee les arènes la ñuy dem les arènes moom la mu xëy tey ñëw fësal ko moo di Balla gay numéro 2 ak ka nga xam ne moo di kilifaam ga ak Aziz mu di Aziz Ndiaye maanaam Aziz daal ay ñetti mbir ngi yoo xam ne moom la tegal Balla gay maanaam amal ko ko comme ay bëgg-bëgg wala ay ambition ñett yooyu ba ca jëkk daal bokk na ci Balla gay numéro 2 bis bu bàyyee lamb maanaam dem retraite maanaam dina nekk retraité boo xam ne daal des koy xool di ko ñee waaye du ñee kenn maanaam du nekk retraité boo xam ne daal day xel di am ay jafe-jafe moo xam ci finance la wala lu mu pan di doon Aziz daal nee boobu bëgg-bëgg bu njëkk la ci moom ngir Balla Gaye numéro 2 yemu Ndiaye ñëwaat na ci beneen bëgg-bëgg boo xam ne bëggal na ko Balla mooy revanche bi nga xam ne ni moom la war a am diggante mag Eumeu Sène mu bëre kook moom te am ca ndam ndax ku ne xam ne ne Eumeu daanoon na ko ñaari am na ko ci Aziz moo di Balla Gaye numéro 2 daal mooy bëgg-bëggi Aziz Ndiaye ca ka xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 retraite boo xam ne day neex lool te it jël yoo xam ne da koo amoon ñooña daanoon ko jàpp ko moo xam Eumeu Sène la ak Bombardier waaye tamit nekkaat roi des arènes loolu mooy la nga xam ne ni moom moo di ka nga xam ne moo di Aziz Ndiaye bu nu continuer ba tey ci la nga xam ne nii moom moo di na tamit ci écrit ba nga xam ne moo di Rock Énergie yëglikaay na Rock Énergie daal maanaam boo bëggee dëgg-dëgg daal cadre yam fi mu nekk nii daa mel ni dañoo lase yëglikaay ba moo xëy dina ko wax ndax ka nga xam ne moo di Lo di roi des arènes di tête de file ba yëglikaay bi ne na nga ci tuus ya laay Pythagore tamit nekk na liet naa boo xam ne fi nekk daal ci ay jafe-jafe dëgg-dëgg ci la nekk maanaam ay difficulté beneen combat boo xam ne ci difficulté la ne ba mu taxawee ñaari at a bi di les arènes xëy na dina ko wax muy diggante Siteu ak Papa Sow yëglikaay na papa moom boo bëggee dégg dëgg daal maanaam dafa bloqué ngir nag dugg ca la nga xam ne moo di antisambre la nga xam ne ñoom ñoo di ténoré Siteu moom donte bëriwul tamit jugaat na ndax nag ku ne gis na ba muy def open press waajal combat la nga xam ne moo ko toppoon ci ab la nga xam ne moo di public keneen koo xam ne ni fi mu nekk nii maanaam wér-gu-yaramam moom mu ngay baax bu baax a baax di gën a yokku muy ka nga xam ne mooy premier tigre de Fass di mbay gi yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci moom les arènes keneen koo xam ne tamit yëglikaay bi daal dikk ci moom les arènes muy ka nga xam ne moo di daam seen ma nga xam ne daal yëglikaay bi ne na soo bëggee dégg dëgg daal ca tànki màng de la topp moom daam daam seen ndax nag mu ngi di dix victoire ak deux défaites mel ni ki xale la boo xam ne daal bu jara bàyyi xel la ci làmb yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëglikaay ba ñëw na wax nu ko muy mel ni maanaam wàllum vaccination ba daal maam lees ma ngeen xam muy nag entraîneur u parcelle mbooloo démb daal fa nga xam ne moroon ci arène nationale moom nekk na koo xam ne moo fa njëkk a wu les arènes moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag combat boo xam ne ñu ngi ko doon xalaat daal ngir Bombardier yëglekaay bi ne na ca MMA ba Bombardier daal fi mu nekk nii soo bëggee dëgg-dëgg daal def na la nga xam ne moo di ab vaccin di xaaral nag combat ba nga xam ne moo dox ci wàllum MMA ba war a dox ci digganteem diggante ba ka nga xam ne moom moo di ka nga xam ne moo di la baneere yëglikaay bi ne na fi mu nekk nii daal Bombardier daal maanaam soo bëggee dëgg-dëgg daal vacciné wu na de xaar mu mel ni ki daal xulle fi mu nekk nii kon vaccin yi gaayaa nga ca man nag dem jël naa sama doos doos ba ma jël nag moom la ñuy wax Johnson Johnson kon gars yi nanu dem rek def defi la nga xam ne moo di vaccin bi ndax olof a ko wax fagaru daa gën faju te itam nag ah wér gi yaram moom loo ko jënd xule da koy daal di jar jërë ngeen jëf dégg ngeen tey yëglikaay yi lañu indi la nga xam ne nii moom moo di sunu làmb les arènes loolu la ñu indi tey mel ni ki nag ah bu fekkente ne daal dégg ngeen li nu wax sur na vaccination amoon na démb fa nga xam ne moo doon ci arène nationale ngeen di gis nii ci ecran bi la nga xam ne nii moom la sunu làmb xëy tey tiitare gis ngeen li mu tiitare du yëglekaay bi nee na daal maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy les VIP daal soo bëggee dégg-dégg daal démb journée boobu nga xam ne moom la ñu woote woon dañoo boycotté gis nga sunu làmb wan nañ ci xëtamu njëkk nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 mu Lo Eumeu Sène Gris Bordeaux ak ñoom ña nga xam ne daal ay VIP lañ ak ña ca des yëglekaay bi nee na gis ngeen ko ci xëtam maanaam boycotté la ñu def démb ah loolu nag doy na waar ndax donte xëy na ñoom maanaam ndax ku mel ni Balla Gaye gis nañ ko mu ñàkku Bomba ja gis ko mu ñàkku waaye terewul xëy na mënoon nañ faa teew jëmmal bés ba ndax it nag wax dëgg yàlla ñoom ñooy xorom ci cin li ndax làmb ji lu mu neex neex neex neex neex te Balla Gaye de bëriwul mu lu bëriwul Gris bëriwul Ama Baldé bëriwul Boy Niang bëriwul Tapha Tine bëriwul Bombardier ak ñu mel ni ki ñoom la ñoom Lac de Guiers wala ma seen lamb ji day am lu ci des parce que nag ñoom ñooy les VIP parce que loolu seen mérite la ñoo ko liggéey yaa dégg kon defe naa ne démb moom wax dëgg yàlla ak lu mën a xew même bu ñu ñàkkuwulee sax mais waroon nañoo ñëw sax jëmmal bés ba pour man tey ñu bëri gis nañu loolu gën a sensibiliser waa làmb parce que tamit ay porteurs de voix lañu te itam bëri na public bu leen di topp waaye nag ah xëy na la tax ñëwuñu ñoom ñoo ko xam ñoo ne liggéentug jàmbur waaye ñun daal suñu gis-gis ci mbir moomu noonu la demee ba tey bu ñu continuer mbir moomu tamit gis ngeen ka nga xam ne nii ah moom moo di euh, Bira Sène wax na ci nee na bu ñu paree gis ngeen ci mbind mi maanaam évalu euh, évaluation day am ngir xool nu ñuy def pour saison bi ubbi ko waat wax na ci Alassane Sall tamit wax na ci Gaston Mbengue wax na ci ndax moom it wax dëgg yàlla Père Gaston man dama ko naan mention la parce que ma lu tax démb sol na dàllam ñëw fa donte ku ne gisoon na ko mu ñàkk bu lu yàgg mais ñëw na fa te ñëw ba mu fa ñëw luy may mbir mi doole la wax ak presse bi vraiment muy loo xam ne tamit man dama koy sali act bi mu def démb moo yeneen promoteurs yi nga xam ne ñëw nañ fa ku mel ne Assane Ndiaye gis naa ko fa ñoom Amadia Pape Sarr am na ay mbër tamit yu fa ñëw ama seen senior ñëw na fa comme mbër ama seen senior école Mor Faram gi gis naa ko fa gis naa fa yeneen ak waa axlu làmb maanaam zey ñu nga fa woon yaa ngi dégg euh, ñoo suñu seen président Basirou Babou ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom mbay jàll ñoom ñëpp ñu nga fa woon ngeen mu mel ni kon démb loolu amoon na solo trop trop trop trop man mii fa laa vacciné woo ah <laughs> démb vacciné wu naa ba tey euh, bu ñu jógee ci loolu continuer yëglikaay bi ba tey dangeen ngeen di gis Zarko nii Zarko bu Grand Yoff Zarko borom woy wu rëy Wally Seck kon Zarko borom Grand Yoff boobu Zarko ngi toj ci làmb ji di def lu doy waar waaye yàlla dogal mu xëy rek dem Europe mu demee Europe nag lu baree bari soppe ko fi dikkaat na nag am combat war a bëre ak Baye Mandione moom sarko yaakaar naa ne combat bi moo get moo ko tëgg Zarko moomu nag tey dafa mel ni fan ne gis nañ ko ci plateau yu bare bari ci internet bi wala ci ay télé muy taakle ñi nga xam ne ñoom ñooy les VIP yemu ca tey nag ginnaan ci sunu làmb gis ngeen li mu leen wax ne na ñoom seen intérêt bopp kese moo leen tax a jóg maanaam intérêt Zarko loolu la wax nee na gars yi intérêt personnel la leen yëkkati mais na leneen intéressé wu leen yemu ca nee na Gris Bordeaux seen association boobu Zarko nee na leen ay farce la du samay wax de Zarko ko wax mu ngi nii yëglikaay bi bind ko moo ko waxal boppam nee na dañuy farce parce que seen bopp leen fi tax a nekk loolu mu wax nag moom mi ko wax xëy na xam na lu tax mu wax ko et puis moom la engagé waaye jàpp naa ne association bu toll noonu ñoom ñi ci ne Gris Bordeaux ah ak fi mu jaar ak li mu doon tey defe naa ne warta mën a jiite loo xam ne ay farce kese moo tax mu jiite ko wala intérêt personnel a ah, yaakaar naa ne warta mën a ne bu amee itam du baax parce que li tax mooy ay rakkama ne ci ginnaawam bootu ci moom ak ay moromam kon defe naa ne noonu ko Zarko waxee bu dee noonu la demee c'est dangereux waaw dañuy yónni yàgg nag parce que olof ne na lu tëë xam dafa yàggul ba tey bu ñu continuer si leneen loo xam ne dañ ciy ñëw muy ab farxat Serigne Ndiaye 2 bërki démb laa ko dalal fii leen di passé moom Ibou Ndiaye Obali mu ne amatul combat lii wala ba contrat bu ko lii ak ki nga xam ne ni moom moo di Habib Farhat ci wàllum làmb ku ne xam ne ne Habib moo tëggoon combat ak Sokocim ne na abaana jeex na fii la ko waxee woon yaa ngi dégg wax ja moo tax olof ne na tontu du forox gis ngeen Habib a ngi nii di ko tontu Habib ne na ah moom Tafa Gueye la doon waxal waa Fass tamit dafa mel ni la nga xam ne moom la leen Habib joxoon dañ ko nañ ko delloo wala boog dañ ko delloo waaye daal moom Habib xëy na tey tontu ko waaw parce que nee na waa ji bett na ko lool ci wax ji ak ni mu defee sorti ndax ku ne abi xam na ne la xam le na ne daal li fi jaar mbas meeg yu mel ni ki noonu ne na ne même koor gi su ne daje nag Serigne Ndiaye Rizis ba ñu mayante fa ay meeg yu mel noonu yooyu nag c'est autre chose yooyu yëpp xëy na dama naan bokkul ci contrat waaye lu ci mën a dé loo ci mën a dégg man li ma ci mën a wax mooy nañu waxtaan ba déggoo Habib jeune la Serigne Ndiaye la yaa ngi dégg Habib yëkkate xaalis jox la pour bëre loola am na lu fi jaar ci ay jafe-jafe mbër yu bare bare bare bare ba ñu waree bëreeg tey yàgg na waaye gis ngeen mbas mi ak yeneen ak yeneen waaye lépp waxtaan moo koy tax mu mel na nga xam ne ni moom lañ ko bëggee bu nu continuer ba tey ci yëglekaay bi ñëw ci wàllum jeux ya nga xam ne mu ngay am ca Tokyo ca réewum ña nga xam ne nii ñoom ñoo di asiatique ya ki nga xam ne nag mooy sunu doom di Adama jaata yëglekaay bi xam nañu ne tey jii gis ngeen ko Adama day wàcc ci comp day wàcc ci compétition yi tey ci alxeme ji ci ngoon maanaam tey ci guddi Aline John nag di l'entraîneur di yëngutu ci mbir yu mel nekki noonu bokk ci ñu engagé Modou Lo xam ne ne Adama ci wàllu expérience am war na koo mën a may tey mu gañe foofu nga xam ne moom mooy ca toog yow ca wàcc bi mu nar a wàcc ñun nag nu ngi koy ñanal yàlla yàlla na gañe moom aadama jaata waaw parce que itam loolu lañ ko mën a ñaanal feneen foo xam ne dañ fay dugg muy lamsaar yëglikaay bi ñëw na ci biir ah ci page sisam di nu xamal gis ngeen ca paas juróom-benneeli paas ba di nu ne daal lamsaar li leen waroon a yëkkati daa mel ni combat yooyu nga xam ne moo leen waroon yëkkati combat yooyu lu ñu mujj aj moo xam Siteu Papa Sow la ndax Siteu waroon naa waaj Quench waaj nee kuréel li waaj ak ka nga xam ne nii moom moo di Mama Lamine waaye yëglikaay bi nag xaaral dem bay neex bu nga dagg ñu aj combat ya te ku ne xam ne ne te itam yaakaar naa noonu ko yëglikaay wax noonu la demee combat suñ ko bëree woon dina bokk ci lu nga xam ne nii ah bu dee dañ caa am ndam. yóbbuwaat tur lamsaar fu sore sore sore sore ndax ñeent ñooñ ku ne xam ne ay espoir lañ ci lamsaar sitta Mama Lamine ne kuréel Queens te ñoom ñëpp waroon nañoo bari ci mois d'août bi mais malheureusement la ñuy wax loolu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci tout si yëglikaay bi tamit dañ ciy ñëw ndax gis ngeen ko ah Assane Ndiaye mi ngeen xam waxuma nag Assane Ndiaye promoteur Assane Ndiaye waykat laa leen wax Assane Ndiaye bu yaay nogoy ah rakki yàlla sa suñu papa Thione Seck yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana moom Assane Ndiaye moomu nag moom mooy ñëw jagleel waa làmb ab single aw way xam naa Assane njaay nag bu wayalee waa dina neex ndax Assane Ndiaye ku ko xam-xam ne ku mën a way la macha allah loolu moom euh, dama naan sa famille boobu moom wàllum way <laughs> xulle defe naa ne euh, moom est ce que tooguñu ci xam naa daal ñoom les faramaren la muy bàyyi yaag doom yaag sut yee ñoom ñëpp daal loolu yàlla may na leen ci seen don la bu buñ fa jógee dañuy toxu dem ci beneen yëglekaay les arènes les arènes la vitrine de la lutte sénégalaise noonu lañ ko tuddee ah moom nag dafa xëy tey ñëw ci xëtam mu njëkk gis ngeen les arènes Aziz Ndiaye ak ñetti mbir yi mu bëggal Balla gay numéro de moom Aziz wan ñu ñu wan ñu Aziz ak Balla ci photo ñetti mbir yi nag ba ca jëkk Aziz bëggal ko ko mooy Balla bu demee retraite maanaam retraite am nekk retraite boo xam ne bu neex lay doon retraite boo xam ne du am ak rëccu du la mu doon bëree wala li mu doon bëree ana fu mu jaar wala fu mu dugg millions yi ñu ko doon fay la mu daan gagné contrat yi mu doon signé sponsor ya Aziz nee lii da koo bëggal Balla gis ngeen ko les arènes ñëw na ci ci xetamu ñu nee na ko bëggal ñaareeli bëgg-bëgg ba mooy ñaari mbër yi nga xam ne dañ koo daan nekk ci làmb ji muy Eumeu Sène ak Bombardier ndax ku ne xam ne ne ñaar ñooñu euh, Balla Gaye numéro 2 war na bëre ak ñoom Aziz tamit bëgg na ci ñaareeli bëgg-bëggam Balla revanche yooyu mu gagné ko loolu ay bëgg-bëggam la ñetteeli bëgg-bëgg ba mooy fexe baat ba ki nga xam ne moo di Balla nekk roi des arènes loolu mooy ñetteeli bëgg-bëggi Aziz lii mu bëgg nag bu njëkk bi bu ñu ci ñëwee muy retraite boo xam ne mbër mi su retraité day nekk ki nga xam ne nii daal gi ñee kenn loolu defe naa ne ku la ko bëggal yéene na la jàmm kon Aziz yéene na la jàmm te bëgg na ma mujj fi baax ndax itam di fi gis mbër bëre jaar ci ay millions yu ñu fay ko ay kase yu baree baree baree bare ëllëg nga gis ko ci ay situation yoo xam ne ñu koy ketal di ko yërëm ak mu dem sax ba am problème fu mu dëkk loolu nag li koy indil mbër mi pour man mooy xulle problème mu encadrement waaye yaakaar naa boo amee ku mel ni Aziz Ndiaye mu di la encadré te itam ku ne xam na ne Aziz euh, euh, il fallait que nit ñi di bàyyi loolu xel Aziz Ndiaye xëyul xëy rek nekk milliardaire wala xëy xëy rek am Zador wala xëy xëy rek am ABC. kon loolu defe naa ne lu leer nañ la ndax ba ku la bëggal loolu jàmm la la bëggal revanche yooyu la ko bëggal pour mu gañewaat ko ba ca des mooy mu nekkaat roi de arènes roi des arènes ba nag ku ne xam na fa muy fanaan day parcelle la ne yaa dégg kon lii la Aziz bëggal Balla Gaye mu mel ni kon daal ah lam ko bëggal am na njëriñ te itam bu amee dina baax ci moom loolu nag mooy ki ki nga xam ne encadreur pour man noonu lay mel ci ki muy encadré yow mi ñu encadré tamit pour yii nga mën ko réussir maanaam dangay ngay déggal ki lay encadré da nga koy nangul doo ko jox bopp ci làmmiñ da nga koy bàyyi ak sa lépp ngeen di waxtaan nag parce que Balla itam du xale mag la euh, te kilifa la yaa ngi dégg waaye du tere nag Aziz mi nga xam ne ni mooy kilifaam te mu nangul ko ko ñuy waxtaan parce que sportif pour man war nga mën am ki nga xam ne moo lay teg ci aw yoon xule loolu du yàq dara leneen loo xam ne bu nu continuer ci biir yëglekaay bi dañ ciy ñëwaat muy Rock Énergie bi nga xam ne yëglekaay bi gis nga ci xëtam mu njëkk nee nañu reconnaître daal soo bëggee dégg dëgg fi mu nekk nii moom lase par ces cadre maanaam cadre daal dañ ko dañoo lase dañoo bàyyi dañoo bàyyi ndiku wala boog ñu waaw parce que Modou Lo mu ngi ca tuusee yëglikaay baa ngi ko gis na Modou ci tuusi laay Pythagore leet la boo xam ne ci ay difficulté la ne les arêtes moom moo ñëw ci lu mel ni ki noonu loolu nag lu doy waar la parce que boo xoolee Modou gëj naa bëree lool vraiment gëj na bëre lool ba mu fi daanee Eumeu Sène ba nii ñu koy wax bëre waatul comme moom ak Ama Baldé ba mu taxawee léegi defe naa ne ëppul est que pour deux ans ba tey mënu ko bëre parce que saa yu ñu ko waajee am lu am ñëw li arrêté nañ ko fii mu génn ca ñu newaat ne ay corona bi ñëw mooy loolu laay Pythagore tamit gis nañ ne amoon na benn allure bu baax bu mu doon daw waaye dafa mujje ñu arrêté ko mu taxaw loolu nag mooy sport xanaa waat la ñëw gën a liggéeyaat gars yi loolu tamit mu ngi ci Bombardier tamit vacciné wu na kon defe naa ñi doon am xel ñaar ci digganteem ak Jérôme la Banner Bombardier vacciné wu na gis nga yëglikaay bi ñëw na ci loolu dina xam ne daal kon fi mu nekk nii xel mën naa dal que ni combat boobu nga xam ne moom mooy MMA bi ko bëree yaakaar naa si mois de septembre bi ku te xam ne dina ko bëree yëglikaay bi loolu moom moo ñu moom les arènes ñëw tamit ci la nga xam ne nii moo di sunu papa Mbaye Guèye mi nga xam ne yëglikaay bi mu ngi xamal ne daal fi mu nekk nii ah maanaam wér-gu-yaramam daal mu ngi amélioré bu baax a baax gis nga yëglikaay baa ci ñëw ah euh, di ñu xam ne daal mbay Gueye sa porte beaucoup mieux maanaam actuellement kon mu ngi macha allah yàlla na gën a wér parce que tamit moom defe naa ne icône la euh, maa formé écurie Fass maa taxaw écurie maa njëkk ne Premier Tigre Fass loolu way la formé ay nit defe naa tey mbër yu baree baree bari ah wax dëgg yàlla ci barke Mbaye Gueye la ñuy teddee ci làmb kon kooku yàlla na fi yàgg te wér lañ koy ñaanal kenn koo xam ne ni tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom muy daam seen di xale boo xam ne euh, les arènes ñëw na ci moom gis nga daam seen daam seen ne nañ mu ngi ci tànki manga dë daal mu ngi ci traitement wu sur les sur les pas de manga dë mu ngi ci ay tànki manga loolu nag defe naa ne mooy li war a am parce que ay manga dë la nekk di doomu parcelle te xale la boo xam ne bu mën a bëre la moom daam soo gis ne mu mujj bëre ak Ndandi Fall nga xam ne teewul tëlewul bëre yëglikaay bi ñëw na ci lu mel ni ki noonu c'est Papa Sow tamit yëglikaay bi ñëw na ci muy combat boo xam ne nii daal combat boo xam ne ñaari at ya yàggaay ga mettiwaay ga loolu nag mooy làmb mel ni kon daal tey loolu ngeen gisoon ci seen écran moo fi ñëwoon ci la nga xam ne nii moo di yëglekaay yi di leen baloo àq di leen baal di leen ñaanal jàmm te ko sàkku ci di wax ne képp koo xam ne yaa ngi ñuy doon suivre à travers Equivox ñu ngi lay remercier amuñu sa fay soxna Asi Diagne ñoo ak sot ca Mauritanie maa ngi lay nuyu Asi bu xarañ loo Awa Diop Touba Mbacké Awa Diop bu Balla Gaye de maa ngi lay nuyu di nuyu ndaag bu ëmma seen série bi ñoom ñëng depuis Ngunjaan ndaag madame ñëng maa ngi lay bégee bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di nuyu sama gars yépp tey waa groupe baax ñoom xaadim xaadim ja ñun ñu gënal ko xam ci turu xaadim Balla Gaye sañ xaadim maa ngi lay bégee di nuyu sa soxna di nuyu maire bi di nuyu waa yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ah di nuyu yi ñoom laat hmm, bàyyi laat maa ngi lay bëggee bu baax a baax waaye tamit di jaale ki nga xam ne moom mooy Fallou El Capo way juróom bu jigéen Fallou El Capo bu Njaay production Fallou El Capo jeune amateur Fallou bu làmb dafa ñàkk way juróom bu jigéen fan yi ñu génn ci Mbàkke di ñaan ne way juróom boobu yàlla na ko yàlla xare aljana sama benn rakk tamit xule boo xam ne ñoo bokk koñ bu ñu dëkk ci Dakar ñu koy wax tafaa Njaay Hmm? di bawal bawal di doomu làmbaay dafa ñàkk way juram samdi bii nu génne ñu di ko doon wax maam jaara jóob fële ca sunu koñ parce que sax sunu kër la fi ma dëkk ci Dakar kon dafa depuis Espagne maa ngi lay jaal sa wayjur woowu di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare aljana di ko jaal say rakk yépp nag sa bépp rakk moo xam góor la wala muy jigéen ak sa ay mbokk yépp di ñaan yàlla maam jaara yàlla na ko yàlla xare aljana di nuyu tamit sama benn xarit bu dëkk foofu wala sax suma soppee waaw parce que euh, xam nga xarit moom benn lay doon waaye xam naa daal sama nit la di sama jigéen bu baax a baax ah di takk der di Binta ja maa ngi koy béggee bu baax di nuyu borom këram depuis fa nga xam ne moo di ca Italie di ku baax koo xam ne tamit vraiment soxna su baax la macha allah nekk fii ci camp pénal ah, di garde pénitentiaire maa ngi koy béggee bu baax a baax soxna Binta di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi doon suivre xule di leen remercier di tamit moom mooy Habib ah borom ñoro doomu ndeyu Moustapha Bitey Moustapha Bitey borom Petronas di wax ne nag xala ma demoon bay neex buum nga dagg waaye ku ne xam ne lañ doon def ñooro moo bu réussiroon nga gis lu doy doy waar waaye Moustapha Bitey tamit kenn du moom maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax ndax nag bu la yàlla joxee kilifteef wala nga dëkk ci gox da ngay wane ne fii nga dëkk di def la nga war a def te keroog ban demee biiroom aman ah la ma fekkee laa mën a wax de taxawaay ba mu def baat tontu la de mu def lii te loolu olof nag nee na lu nekkatu ne jox na koy faj waaye tamit benn association boo xam ne dafa taxaw ci ak yaay jeune bu ñuy wax Malick Diouf di ko diriger ànd ci ak ñun ñi nga xam ne ay magam lañ ak ay rakkam ak ñëpp ñu koy wax ak yaay ca kanam ak yaay ca kanam la ko tax a jóg mooy fexe ak yaay mooy sama village nataal ak yaay li mu manque yëpp ñu fexe mu am ko te ñu nga ca taxaw di ca dox guddi ak bëccëg kon ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ak yaay ca kanam ah maa ngi leen di ñaanal yàlla di leen nuyu di ñaan yàlla ak yaay ca kanam yàlla na ko yàlla teg loxo ba mu raw parce que nag ku ne fa nga dëkk nga am man ak yaay laa am fa lay sagoo guddi guddi fa laay fanaane xulle kon ak yaay ca kanam mention spéciale ña ca nekk ñépp mënumaa lim waaye dinaa wax mention spéciale ah le commandant de brigade Aline Ndiaye suma papa la di doomu ak yaay gis nañ taxawaay bi mu am ak yaay ca kanam ñoom oustaz Arona Tine ñoom ñépp ah suñu doomu imam Pape Djibril Diouf taalibe Cheikh ah ñoom ñëpp ñu nekk ci biir ak yaay ca kanam ñoom ab Ablaye Fall nekk fii douane di fa liggéeyee ñoom ñëpp gis nañ leen Pape Ibrahima faal tamit nekk Touba di liggéey ci wàllu mburu mi doomu ak yaay yëpp ak suma beneen frère bu ñuy wax Moodu boobu nekk ba Mboro di fa jàngale di professeur ak beneen doomu ak yaay bu nga xam ne mu ngi fii Maurice de Maurice la Fosse di fi jàngale di professeur di Badou Kama ñoom Moodu Ndiaye directeur d'école bu ma limee dinaa jiw doomu ak yaay yëpp daal maa ngi leen di wax mention spéciale ak yaay ca kanam yàlla na raw ca kanam ak kanam ak kanam xulle ba beneen yoon Ah oui, bonne souffle. Ah oui, attention Jackson. daanu sàmm ndax mbokk yi xam ngeen ni ci biir émission boobu si ngeen di amee ay rubrique yu am am solo